bayo bangi elwan amatuma ay boy bayo bangi elwan amatuma bay boy bayo bangi elwan dem na bama bayo bangi elwan amatuma ay looy def fii nga naan ma commissaire. jox ma xaalis bokk. commissaire kay du léegi waaye ca kanam la. waaw jox ma xaalis bokk. ban xaalis xoolal man oto yi ñoo ma yitteel ah oto yi sàcc yeeg ak ak politique bi ak li nekk ci dëkk bi ah sama salaire bu baadoolo bi mënu ma ko dindi nag dina ci toog nag ba léegi dimbali booy ah. gis nga soo ma saraxee ah. waaw ah. naa ñaa nga ne commissaire bu gën a mag a mag a mag a mag a mag si dëkk yi. <laughs> commissaire bu gën a mag ci dëkk bi waatal. bakki borom nindi. Ah. yow xanaa sa yaram neexul. ah lan laa nga day gone gi lee. man xale bi tuuti maa ngi taxaw fii ah tuuti nga day gone gi nga naan ma kii jox ko téeméer dërëm laa ko ndàmpaay. ah non sincèrement juróom fukk laa. ma ne jox ko téeméer dërëm ndàmpaay laa la wax ah. juróom fukk laa fi yore. 300 nga may jox. mais juróom fukk a ngi policier yeeg ñëpp a yaa faat loo am na fi yaa sax teew bu jën ak suufu kànja toogal. ma fi sarax man sama ma jox sama doom ñu lekk am leen ñu ma lu ma am sama jëkkër ko sàngara léegi loo bëgg ba lay jox aw ma ah. a ñaanal yow. sama saraxee dinaa ñaanal de. loo may ñaanal. naa ñaanal sa jëkkër bàyyi naan sa restaurant bëri client boo toog mu gaaw jeex. ay doom ci loo may ñaanale. ah alxuraan dafa foor de. moom yàlla na yàlla nangu sa wax li nga wax ni ma sonne am. merci yal na la yàlla fay. yow eh Ousmane. Ousmane yow kii mooy saay saal yow. la ilaha illallah. allah daal. moo may sonale nii. lan la. oto bi rafet na de. yow lan la yow. ah xam naa lu nga jëndee war na seede. waaw yow yaa xam oto mel ni xam naa ma war a sarax 500 sax. jàllal waaw jàllal jàllal 500 francs. waaw am juróom dërëm. waaw am na ñu fi romb te seen oto moo gën ñaar dañu may loo ku juróom. loolu la yow xanaa da ngay yaakaar ne mën naa Père booy looy def fii acca jaaral geliyor. Hala boş saray. Cemal, Cemal, bëgg nga dimbali ma rek bindal ma benn lettre. waaw loolu mën naa nekk. waaw yow koy bind sax te ku koy jàngal. man daal damaa bëgg nga dimbali bindal benn lettre ma yónnee ko peenee wax ko sama soxla ñaanaale ko ay affaire daal. ah loolu moom mënuma la cee dimbali. ndaxte kat sa monsieur moomu. Eh, damaa am yaakaar ni déggul arab hmm? lii nag war naa tax nga jàng français ah waaw yow ana li nga ma yoreel sax. man daal lii rek am. ah déedéet déedéet déedéet xoolal loolu moom mënut a nekk moom Ousmane kontaanuma ci yow de dégg nga li ma la wax xel ba boo dellu si fii ci kër gi na nga matal soo sas dégg de te sax man damaa war a aji. ah man xaw de. waaye Ousmane yow meloo woon ni ah boo dellu si ci kër gi fexeel ba indi xaalis dégg li mu la wax waaye neen mott waaye man gi mos naa gis li eh, Fass xam naa sonn nga ah ma joxoon nga lekk waaye bëgg nag nga wax fu pexe nga nekk foofu la kon foofu la nekk. ko. kooku mu waay waaw loo xewle mu jotee ak yow xanaa mënoo dem fi ngay dem rek te bàyyi fas wi xale bi de. man kay damaa romb rek gis ko rek ma yërëm ko ma koy jox mu lekk. ah waaw moom moom kat fu mu ne la nga lekk de laaju la dara ah. te man sa pap dam doon yalwaan yoroo pièce ak sarax ma. yalwaan. waaw. ah doom man kat fi ma nekk nii man fi ma nekk nii kat man ni ma mel nii mbaa am naa lu ma joxe ak sama fas wee yem de. gis nga soo ma saraxaa naa ñaanal penal may la fan bu ngandee ngandee ngandee ngandee bu nga xam ne du mus a sonn. Ah. ay bagage sa da koy yëpp. sarax ma rek seet. ma seet. ah li li kii baax na. waaw. merci yàlla nga sa fas bi yéen a jàmm. waaw man kay ñaanal ma ma am geneen moo gën. ah <laughs> maaleykum salaam. fii la écrivain public ne. écrivain public de da ngay dem rue 31 euh, boo demee nga laajte Serigne Gueye. merci jërëjëf. salaamaaleykum. maaleykum salaam. fii la Serigne Gueye loolu la man daal damaa bëggoon nga ma benn lettre ma yónnee ko Papa Noël. waaw. ñaata nga am. man 500 francs. 500 francs. na la doon fanweeri ligne ak ñett d'accord alors. man daal damaa bëggoon su ñëw. mu indaale ma fas. parce que bokkan la. mu Samba Traoré ndax Samba Traoré moom saraxoon ma fasam boobu mu yoroon dafa sonn feebar dafa màgget. dama bëggoon yaa faat moomu saraxoon ma si restaurant lu mu toog mu gaaw jeex restaurant bëri client te tamit jëkkëram bàyyi naam. ak lan. dama bëggoon policier boobu saraxoon ma. mu nekk préfet dama bëggoon sama sëriñ dem màq nga ndim juma bu bees waaw ak dama bëggoon suy ñëw mu indaale la machine bu bees tàq man machine bu bees waaw pour yow ay ah, yow kat baax nga waaye jërëjëf waaye noo tudd. man Ousmane. Ousmane. waaw yow nag bëggoo dara. man. ankay.